barricade noonu mu toll nii xoolal ndax ñemewuñu bu ñu bàyyi woon ak ñoom ñu déggal leen de fii mu nekk nii judduwaat laa fi gis waaw. xoolal fii mu nekk Macky Sall bareel gis nga nii ñu barricade ñii nii lañ lay barricade bés amul sax ma dem te ñëw dinañ la barricade amul ma dem te ñëw waaw. yaa ngi nii nag xoolal gis nii la pare police bu a tegee waa APR ñi leen noot nii xaaral ma xëcc sax yëf yi ngeen xool xool leen xool leen xool leen xool leen. xool leen ndeysaan ci ginnaaw kii yi xool leen xool leen ñu ne nemm na leen fii mu nekk si diggante police yi laa leen di jëlal nii ñoo ñàkk jom ñàkk jom la ñu def xool leen xool leen ñàkk jom dictateur dictateur dictateur fils de pute vous imaginez nos jeunes sont en train de mourir comme des mouches par la police et le ministre et les nardis de Macky Vous imaginez Les narvis sont partout au Sénégal. On les a ramenés de nulle part. sont en train de tuer les jeunes dans la rue. Même la France, le gouvernement français est au courant de ça. Et vous voulez qu'on cautionne ça Vous voulez la démocratie, le droit de l'homme Pourquoi on piétine le droit de l'homme Pourquoi vous avez hébergé un assassin en pleine carte de Paris 60, de nos jeunes sont morts à cause de Macky Sall. Il n'utilise pas la police, mais il utilise les nervis, les milices contre son peuple, qui tirent sur le peuple. On est à 60 morts, 700 blessés. 700 et quelques prisonniers politiques. Vous trouvez ça normal Assassin Assassin Macky Sall dictateur dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur dictateur dictateur dictateur dictateur dictateur Macky assassin assassin Mr. Big, Mr. Big, Mr. Big, Mr. Big, Mr. Big, Mr. Big, Mr. Big, Mr. Big. Parking! Bis dafür! Parking! Bis dafür!